aga mo xam ñom la mais ñun devant ñun respect bi fay tew mhm. dañ leen ko imposer mhm. Diomaye aussi mhm. à chaque fois li may wax il faut qu'il siffle la fin de la récréation récréation beeg une bi dafa jeex état lañ ko jox 18 millions de sénégalais lañ jox Diomaye ma bañ ko ma bëgg ko bien vrai que j'ai un problème avec sa candidature comment il a pu être candidat étant en prison il est devenu candidat jusqu'à être le président de la république ñu génnee na ci yëfi institution yëfi àdduna Ousmane Sonko na gëm yàlla président yàllaa koy roof ci nit te bu joomaay taxawee nga xam ne yàlla roof na ci moom président te bés ba mu lay def président bu bësatee mu roof ci yow euh, ki jëmmi jëmmi président mm-hmm. xoolal joomaay bu njëkk ba ak joomaayu tey bi am na xam nga demul ñu defar kanam gi kenn kiiwu ko ni ñu koy waxee opération yi ñuy def kenn chirurgie wu mu leer la la chirurgie yàlla moo dugg ci moom <laughs> yàlla yàlla ko chirurgie boppam chirurgie naturelle bu yàlla <laughs> ah bon kon <laughs> ah. Ousmane nan nangu te gëm mhm. Je suis le président du Sénégal mhm. je n'ai pas voté pour lui mhm. ànduma ak Diomaye Je mhm. ak ay façon de faire Je mi faral Ousmane Sonko ci Ousmane Sonko pas ko faire dàq dafay yàgg su amul jombu démissionné dañ ko waroon a Ousmane Sonko taxaw na nee ministre de la justice moom le ministre de l'intérieur te bu waxee ministre de la justice day woo procureur procureur def su ko ne diable ma Fall da par force ah waaw léegi lañ doon wax ci diggante Madiambal Diagne Cheikh Yérim Seck mhm. Bougane gay Dany mhm. xanaa Ousmane dëggal na ko keroog mhm. léegi Ousmane Sonko daal moom loi bi pour moom la daal ak ñi mu àndal waa léegi la xew bërki dem Koungheul Diomaye xanaa gisul woon loolu xanaa Ousmane Sonko gisul woon loolu ñu gis garde corps Ousmane Sonko loolu mom ñeneñ sax mën nañ leena baña xamé mais garde corps Ousmane Sonko dañ ko ci xamé mhm. mu yor jassem di corote ay scooter corote ay scooter tiw tiw di yak ay scooter yo xamné ndaysan Sénégal metti na jamono metti na sa yaay natam, nattam. sa nday dajalé natam sa yaay tégg natam sa yaay di dajalé di jël ci dépense am di wañi su ko papaam jox sa papa joxé ñaar témé mu jël témér ba denc. Mhm. jëndal ci domam scooter Jakarta nga jël Jakarta ba di corote. ñu yor gis ñu yor ay fétal xanaa loolu ñëpp gis nañ ko. Ah, mais après aussi génn nañ ne ñoom dañ leen attaqué moo tax ñu riposte. soyons sérieux. Mm-hmm. Mm-hmm. ñoom ñoo yoroon caravane ces gens là étaient devant chez eux. Mm-hmm. comment des gens sont dans leur dans leur dans leur dans leur euh, siège. di attaqué benn cortège buy dem. te buñ la attaqué attaqué yaay fajal sa bopp. yaay fajal sa bopp. dem nañ ba Ousmane Sonko moom laa dégg moom Ousmane moo ne. Euh, kii dafa ragal ba tëb num mu tudd. Euh, Malick Gakou dafa ragal ba tëb te boo ragalee waroo bokk ci cortège yi Ousmane ay tapas mooy euh, tooñ euh, takkine Malick Gakou ba loxo ma damm ñoom ñu ëlbatiku ñu ne ñoom ña doon attaqué ñoo damm loxo Malick Gakou xanaa kon ñi mën nañoo fen <laughs> ñu ëlbatiku ñu ne ña doon ñoo doon te pourtant waa kër ndaw si génn gisul seen vidéo de ñuy gaañaate seeni vidéo ñoom rek seen vidéo rek ñoom la ñu gis mm-hmm. waa léegi boobu ana inter ana intérieur mm-hmm. boobu ana justice mm-hmm. boobu ana procureur mhm. wala dafa am justice double vitesse wala dañoo bëgg nekk ci dëkk boo xam ne dictature dictature du fi dox mhm. man de xaw ma kan man sama genre ki kenn mënu ñoo tee wax mhm. xanaa nga te paak suñu put rey ñu rek nag mais nag bu ñu gisee lu ñu war a wax dañuy wax boobu ana ministre de la justice ñu demati Saint-Louis man borom boutique bi laa dégg ndax mag ñi dañ naan bu wax dofee nopp ba koy dégg warta dof loolu la mag ñi di wax maa dégg borom boutique bi mu ne ñii ñëw nii du ñu ay du ñu ay politiciens ñii ay agresseur lañ. Mm-hmm. te ku seetaan vidéo bi gis seeni façon xàccee. loolu du xale buy politique xale buy politique mënul loolu.